ñëw na ñëwaat nañ fii ci jataayu fàttalante biñ tàmm am guddi ajjuma gu nekk fii ci masjidu nuur tey ci ci guddi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit ñu ñëwaat di fàttalantewaat ci suñu diine jamono yi yépp nag ñu ngi nekk di fàttalante ci mbirum julli ndax niñ koy ak a waxee julli day jaamu yàlla goo xam ne dafa jara toppatoo bu baax a baax a baax a baax ba mu wóor la ne yaa ngi koy def ni nga ko war a defi ndax mooy jaamu yàlla goo xam ne yonent bi nee na bu yomal xiyaamee ci lañuy sa ci lañuy tàmbalee seet li nga baax baaxle bu julli baaxee ñu jàll ndax xam ne ku baax li julli mën ngaa baax li lu nekk waaye bu julli baaxul dañuy arrêté ndax ku baax lawul julli mën loo baax leeti dara yàlla nañ yàlla musal ci dem àllaaxira di bokk ci ñu seen julli baaxul yàlla nañ ci yàlla musal loolu moo tax ñu war cee jàppalante ba jàpp ne ni ñuy jullee def nañ ci suñu fulla ak suñu fayda ba liñ munta ñàkk xam-xam nañ ko ba rëcc rëcc yi borom bi ñu ñaan ko mu jëgal ñu ko ndax julli nag ni nga war a jullee nag moom yàlla mayu ko ñëpp waaye daal fexe ba boo booy jullil foo toll xam lan la ci julli gi loolu moom farata la moom loolu moo tax taay yëpp ñu nekk ci ay masala yu ñëw ci al axdar yi te mooy bunt bi ci mujj mooy buntu defar julli biñ ko gëstoo ñun bind nañ ci lum lum néew néew juróom benn fukki masala ak juróom ñaar jamono yi yëpp ñu ngi ci woon ba bind bi jàll ñu ngi woon ci numéro yi juróom fukk yi juróom fukk ak benn juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett xam naa bala ñuy jàll ñu xool ndax am na lu ñu fàttaliku ci masal yi nga xam ne jàngoon nañ ko ci ci ajjuma ji jàll léegi damay jëw ci masala bu yomba yomb mooy juróom fukk ak ñaar juróom fukkeelu masala ak ñaar te mooy kuy julli gis lu koy lor mu mu mu fànq ko mu fànq ko ci biir julli gi loolu lan lay def ci biir julli gi lan la ci mën a def lan la mën a def ci julli gi bu dee ci àll bi danga nga naan da julli seen jiit yuy ñëw wala jaan yuy ñëw waaye man nga wax luy lore rek danga nga doon julli ba càgg nga séen luy lore nga fexe ba fanq ko léegi loolu lan lay def ci julli gi loolu la mën a jur ci julli gi ndax ku ne la mën a dal ku nekk ci ñun mën na koo dal waaw tant waaw du yàq dara ci julli gi feeg du mooyul xibla gi ah bu du mooyoo xibla nag julli gi yàqu kon kiy julli gis lu koy lor walla boog mu gis ku nar a loru gis xale bu daw jëm ci taal walla xale bu jëm ci lu ko mën a gaañ nga fànq ko nga jël xale bi toxal ko loolu mun te yàq julli gi féeg sa jëf jooju jurul nga wan xibla gi gannaaw boo du xibla ma sa julli yàq kon ñu bàyyi xel loolu ndax mën naa dal ku nekk moo xam danga ngaa luy lore wala nga séen ku nar a loru soo ko fanqee te jurul nga nga nga du xibla sa julli gi dara nekku ci waxoon nañ ci juróom fukkeelu masala beeg ñett ku julli ba sëlmal di safaak witre di safaak witre safaak witre naafila la muy werante ndax rakkaa bi mu nekk nii rakkaa ñaareelu rakkaa safa la walla ñetteelu rakkaa witre la witre mooy impair witre mooy benn ñett juróom juróom ñaar juróom-ñeent loolu mooy witre euh, waaw shafa mooy paire deux quatre huit voilà dix léegi su fekkee da ngay julli ba càgg ngay werante ndax rakka bi ma nekk nii rakka shafa la mooy ñaareelu rakka shafa la wala ñetteelu rakka witre nooy def dangay jàpp ne ñaareelu rakka safara nga indi beneen rakka muy wét après nga sujjóot baada kon ndeke nit mën naa sujjóot baada salaam ci lu dul julli farata danañ ci ñëw danañ ñëw ci li wuutale farata yi ak ak naafila yi juróom fukkeelu masala ak ñeent biñ jàngoon guddi àjjuma gi jàll dañoo laajoon ku wax ci diggante shafaa ak witre shafaa ak witre benn genn julli la su la neexoon sax doo sëlmal su la neexoon boo julee ñaar rakka dangay da jóg indi ñettee rakka doo waaye man ngaa sëlmal waaye nag soppuñ wax ci diggante bi ndax genn julli la waaye yow wax nga ci bi nga sëlmalee shafaa lu jiitu ngay julli ñetteelu rakka bi di witre wax nga fi wax nga fi léegi si loolu lan la mën a jur ci si julli bi ah dañ ko ah dañ ko sib faw kañ lañ ko sib soo ko teyee soo ko teyul kenn suba kon wax diggante sabaa ak witr soo ko teyut dara nekku ci soo ko teyee lañ ko sib loolu mooy juróom fukk ak ñeent juróom fukk ak juróom waxoon nañ ko masala bu xaw a gudd la woon ki ñu raw ci julli ki ñu raw ci julli waaye li mu am ci julli gi matul rakka dañ ko raw ci julli gi waaye liñ ko raw ci julli gi matul rakka mooy bi muy dugg ci julli gi imaaman ci rakka bi mujj ci julli gi te fekk na ko muru koo ba pare kooku bu imaam dee sujjóot sujjóotu xabla wala sujjóotu baada nan lay def bu ko sujootee nag julleem yàqu ndax defar na julli gum doonul dara bokk na ci ñi defar julli guñ doonul dara julli gi doonoo ci dara ndax bokkuloo ci ndax amuloo ci rakka bépp julli boo amul lu mat rakka bokkuloo ci kañ ngay am lu mat rakka ci julli gi mooy bu la ci rukkoo bu fekkee boo fekkee rukkoo ba kon ku topp ku ñu raw ci julli te li nga am ci julli gi matul rakkaa julli gi bokkuloo ci kon buñ koy defar sa yoon nekku ci moo xam sujjóotu xabla la moo xam sujjóotu baadal doo ci sujjóot benn boo ci sujjóotee benn si julli yàqu na ah, léegi nag am na ci rakkaa am na ci rakkaa walla lu ëpp rakkaa léegi am na ci rakkaa dañ ko raw waaye am na ci julli gi lu mat rakkaa wala mu ëpp rakkaa léegi bu imaam dee sujjóot bu muy def ah day ban sujjóot lay bokk ah baada bi nag nu mu koy def bu paree def nag waaw ah. léegi nag su ko sujjootee su ko sujjootee te waru koon sujjoot waa ji dañ koo raw ci julli gi waaye am na ci julli gi lu mat rakkaa léegi bokk na ci julli gi bu julli gi yàqoo julleem yàquwaale na suñ koy defar daa war a defar léegi nag imaam buy defar julli gi benn mu defaree ko xable salaam wala mu defaree ko baada salaam bu dee xable salaam la koy defaree mooy day su su ba pare door a sëlmal day ànd ak moom parce que moom amagul droit wu àggali ndax julli imaam jeexagul kon day su jóot ak imaam su jóotu xable bi waaye su jóotu baada bi moom day xaar ba pare julleem moom door ko su jóot moo tax bu imaam sëlmale rek day jóg taxaw moom imaam sujjóot baada salaam moom mu continuer ba juleem jeex mu sujjóot baada salaam léegi nag bu àndeek imaam sujjóot baada salaam ah juleem yàqu na kañ kañ la juleem di yàqu sëlmale ku sëlma léeg-léeg julleem yàqu ku sëlma kay si julli mënut a yàqu ku sëlma kay si julli du bu pare génn bu ko teyee ko teyee la julleem yàqu ko teyee julleem yàqu bu ko teyee la julleem yàqu waa ji dañ ko raw ci julli gi imaam war a sujjóot sujjóotu baada moom fiq da ko waxoon ne bu ci bokk bu imaam sëlmale rek yow jugal àggale si julli moom mu juum imaam sëlmal avant jóg imaam di si jóg baal mu ànd ak imaam tey ko kooku moom day sujjóot baada salaam moom bu ko teyee la julli gi yam di yàqu bu ko teyut baada salaam la sujjóot c'est-à-dire day ànd ak imaam sujjóot baada salaam àggalee julli gi sujjóot baada kon ñaari baada salaam ay am ci ñaari baada salaam lay def ci julli gi attention masala bu bu sew la masala bu sew a sew la dañ ko bàyyi xet waa ji dañ koo raw ci julli gi waaye li li am ci julli gi mat na ràkk mën na rakk wala mopp ko léegi ci julli gi la bokk kon bu julli gi yàqoo julleem yàqu na léegi nag imaam mooy defar julli gi imaam nan la koy defare xabla salaam wala baada salaam xabla salaam mooy sujjóot yi muy sujjóot bala moo sëlmal baada sa jaa salaam mooy sujjóot yi muy sujjóot bu sëlmalee ba pare sharia ne ko yow mi imaam raw nga xam ne bu imaam sëlmalee yow sa julli jeexagul bu dee sujjóot xabla salaam sujjóotal ànd ak moom ndax moom sëlmalagul comme sëlmalagul mun loo sëlmal àndal ak moom xabla salaam salaam bi nag bu ko xaar jógal yow nga àggale si julli boo paree nga nga sujjóot ko bor la bor la ci yow waaye yaa ngi koy fay boo sujjóotee boo jullee ba pare moom deful lool dana asalaamaaleykum imaam dana asalaamaaleykum rek moom avant muy wàjj jóg rek mu gis imaam di sujjóotaat mu dem sujjóoti ànd ak imaam te dañ ko ko aaye woon su ko teyee su fekkee moo tey def ko julleem yàqu su ko tayut nag day sujjóot baadi salaam kii danaa ko laaj tawaat neen ko danaa ko laaj tawaat masala bi danaa ko laaj tawaat boo sax dinaa wut waaye yéen ku leen di neexal lan la war a indi si <laughs> ku leen bëgg neexal lu muy ñëw sax ah, ah? yéen ustaas bu leen bëgg a neexal lu muy indi ah, danaa ci xalaat daal parce que boo xa boo dee ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne awo lañ bëgg am ci ñu bëgg ñaareel peut-être waaw <laughs> am am ñu bëgg a métier waaw ah, ah. waaw donc laaj bi moom nañ ko denc danaa ko denc wut ci wutal ko neexal bu rëy rëy léeg-léeg ma laaj ko ba léegi nag juróom fukki ak juróom benn juróom fukki ak juróom benn moom itam jàngoon nañ ko moom dafa imaam daa sëlmal ba pare mu juum juumu boppam imaam sëlmal na imaam amul benn juum te bu mu def moom moo doon àggale julleem juum léegi nu mu koy réglé ah juum boobu mën a doon rek moo xam juum jumte juumte buy jur baada salaam la wala juumte buy jur xam ne salaam en tout cas juleem gi juum la ci te bi ci juumee fekk na imaam sëlmal hmm? Hmm? Hmm? d'accord dëgg la waaw moom dafa ne na mel ni ku doon julli moom dong rek day jàpp ne moom joteetul ak imam dara jullee mu ngi mel ni ku doon julli moom dong lu mu ca yàq moo koy defar day mel ni ku doon julli moom dong rek day mel ni joteetul ak imam dara ndax même bu fekkee am na ci ràkka imam bi tam moom jullee boppam gi la doon àggale moo yàqu ci moom la yàqoo kon da koy defar comme ku doon julli moom dong da koy defar comme ku doon julli moom dong léegi juróom fukk ak juróom ñaar àggoon nañ foofu juróom fukk ak juróom ñaar léegi waa ji dañ koo raw mu ànd ak imaam imaam juum ci julli gi war a sujjóot baada salaam muy bor ñu ne ko denc ko bu imaam salmelee boo àggalee si julli nga fay ko salaam mu jóg di àggale julleem njuumte njuumte bu war bu mu war a sujjóot xabla salaam léegi nan lay réglé loolu est que jàngoon nañu masala bi jàngoon kon masala bu bees la dangaa ànd ak imaam imaam juum njuum te bu mu war a sujjóot baada salaam bii jiitu li mu wax mooy comme baada salaam la bu ko imaam di sujjóot doo ànd ak moom da àggale sa julli ba pare door koo sujjóot soo àndeek moom sujjóot ko te tey ko sa julli yàqu soo juumee ànd ak imaam da nga sujjóot baada muy ñaari baada loolu lañ waxoon léegi nag dangaa donn ci imaam baada salaam ba pare yow nga def xable salaam sa julli xable salaam war la si nooy def ah xable salaam lu tax ah voilà c'est vrai ah, daanaka loolu moom nag zaadawul naqasa imaam moo naqasa moom mu zaada <laughs> waaye day mel ni moom moo zaada naqasa effectivement xable salaam lay sujjóot ñaari sujjóot bu la waree xabla ngay jël ñaari sujjóot doom am xabla salaam wala baada salaam su la ñaari sujjóot waree ci génn julli gi xabla salaam la ngay sujjóot xabla salaam moo yóbbaale baada salaam macha allah bàyyi ko xel képp ku donn baada salaam ci imaamam am xable salaam ci bu muy àggale julleem léegi ñaari sujjóot war na ko baada salaam ak xable salaam charia ne na jul xable salaam bi doy na benn bi doy na xable salaam mën na wuute mën na wuutu ñaari loolu mooy juróom fukkeelu masala ak juróom ñaar ngeen takk baax juróom fukkeelu masala ak juróom ñaar cinquante sept masala soo su la sujoodu xabla waree ak imaam sujoodu baada sujoodu xabla war la bi ngay mottali sa julli sujoodu xabla bi ngay sujood mu wutu ñaar yëpp sujoodu xabla bi ngay ngay sujood waaw juróom fukkeelu masala bi ak juróom ñett 57 daf yaa ngi commencé dëgër de attention léegi kii dafa fàtteeru ko bay sujjóot xam naa da nga def ni ñu day def ne est-ce loolu mën naa mais day am di julli ba càgg rek mu mel ni dangaa rukkoo ba jóg war a sujjóoti nga dem sujjóoti nga fàtteeru ko bi dem bay sujjóot fàttaliku rajaaxaay na da ngay jugaat naan ñokket jugat yi soo jógee nag bëgg nañ nga jàngaat tuuti door a rukkoo sujjóot ba pare nga sujjóot ba de salaam lu tax dangaa ngaa ci julli gi képp kuy julli fàttee rukuwa fàttee rukuwa ba ca sujjóot bay sujjóot su ko fàttalikoo danaan jóge danaan ñokket jóg dem jógaat day bàyyi sujjóot bi dem jógaat bu jógaatee nag bëgg nañ mu jàngaat tuuti door a rukkoo sujjóot su paree sujjóot ba'da salaam waaw képp kuy julli fàtteeru ko mën naa nekk ndax booy julli boo rukkooyee bala ngaa sujjóot da ngay jógaat ba taxaw te taxaw boobu bëgg nañ nga dafa teg ba yëg ne da taxaw ba ku la seen xam ne da ngaa taxaw mooy eeti daal léeg-léeg nga defee ne foofu nga nekk léeg ngay julli ba defe ne da ngaa rukkoo ba pare nga dem di sujjóoti mais bi nga demee bay sujjóot nag nga fàttaliku ne rukoowuma da ngay naan ñokket jógaat taxaw jàngaat tuuti door a rukoo door a sujjóot soo paree nga sujjóot baada salaam ndax da ngaa dolli ci julli bi ah. léegi contraire bi. Ah. waa ji dafa fàttee sujjóot ba taxaw na nasiya sajdatan waahidatan sujjóot yi ñaari sujjóot la mu sujjóot benn bi fàtte bi ci des taxaw su taxawee na wàcc na wàccaat toogal su ko defee mu sujjóotaat ko ah, mu sujjóotaat ko bu fekkee nag dafay taaye woon du baamu taay bi eh, affaire yaa ngi bëgg compliqué de <laughs> eh, yaa ngi bëgg compliqué de waa ji dafa dafay julli su jot benn yoon rek fàttee ñaareel su jot jóg taxaw taxaw ba ne temm avant muy rukkoowaat mu fàttaliku day day wàcc toogaat bu toogee su jootaat ko su ko su jootee buy jógaat bu fekkee taaye woon na du taayewaat du baamu taay bi su fekkee loolu ci ñaari rakk la ko dale woon mën na ko dale ci ñaari rakk mu su joot benn su toog defe na su joot na taaye ba pare jóg taxaw door a fàttaliku ne benn su joot lu su kooku day wàcc su jootaat ko ba pare waaye du baa baamuwaat taay ji waaye masala àggalewu ko kii lépp dara waru ko est que dara war na ko dara ko lu ko war ah? lu ko war ah salaam moo ko war dafa dolli dafa dolli waxu ko fii ah waxu ko ci masal mais loolu da ko da ko bàyyi noonu mais xam ne baada salaam dafa dolli moo kenn moo ki njëkk ñooy am moo ki fàtte rukkoo bi ñooy am kii daa fàtte rukkoo dem bay sujjóot ñu ne ko jugaatal jugaatal jàngaat tuuti rukkoo waat soo paree nga sujjóot baa di ndax dolli nga ndax sa rakk bi am na ñaari yoon jóg kii moom sujjóot bi la fàtt ba taxaw avant muy rukkoo mu fàttali ko ñu ne ko ñëwal sujjóotaat te bu fekkee da ngaa taaye woon bul ko baam bul baamu taay bi kooku itam dafa dafa dolli ci julli gi moom itam baada la léegi nag masal bii bii may bëgg a ñaata masal lañ jàng tey du lañ tàmbale woon voilà 57 léegi ba 60 60 bii nag damaa nañ ko war a bàyyi bu ñëwaat fi 60 bii moo tax lax dana jafe 60 bii moo tax laxdar yu jafe bari na ku jàng laxdar yi mënut a dégg masala moo tax moom la ñuy wax lam yafuuta koo dégg mu wax ndax ndax dégg nga lam yafuuta bi moo tax sa mbokkum saalum saalum doon jàngal taalibi bi suba ba ngoon bu ko waxee ba daale na ko ndax dégg mu ne ko déedéet mu jékki-jékki ne ko doo ko mën a dégg ndax man muy faa ko déggul <laughs> ko doo ko mën a dégg ndax man mii faa ko <laughs> masala bu compliqué la donc ñu ñu tàmbali ko heure bi des tuuti waaye da ci ciy dellu si waat nee na ku fàtte ñaari sujjóot yépp ku fàtte sajdatayni xarra walla walam yajlis wa yasjudu fi jamii dalika baada salaam ku fàtte ña ku fàtte ñaari sujjóot itam da nga leen di sujjóot da leen di sujjóot fu mu la mën a fekk danga koy bàyyi ñëw sujjóot leen ba pare soo paree nga sujjóot ba salaam soo ko fàttalikuwul ba jóg ba àgg ci ñaar rakka bi ci topp ba rakka boobu fasu léegi dangay bàyyi rakka bi nga fàtte sujjóot bi da koy sànni nga indi beneen rakk sujjóot qabla salaam su fekkee rakka bi yàqu ci ñaar rakk yu njëkk la bokk wala su fekkee ñaar rakk yu njëkk la bokk te bi nga koy fàttaliku ñetteelu rakka bi fasu na wala nga sujjoot baada salaam su fekkee bokkul ci ñaar rakk yu njëkk yi wala mu bokk ci ñaar rakk yu njëkk yi waaye fàttaliku nga ko balaa ñetteelu rakka bi di fasu ndax suurata wal juloo sa lam yaxuuta ñu seet wa in tadakkara sujuuda baada rafi rasi min arrakaati allati taliha wa in tadakkara sujuuda baada rafi rasihi min alrakaati allati taliha tamaada ala salaatihi wa lam yarja wa alga rakaata sahwi ba loolu leer léegi bi ngay fàttaliku sujjóot yi fekk na nga rukkoo ba pare ci rakka bi ci topp c'est fini continuer rakka bi bàyyil rakka bi sànni ko loolu neex naa comprendre képp ku bàyyi ñaari rakka ñaari sujjóot bàlle bi ku fàtte ñaari sujjóot foo ko fàttali demal demal sujjóoti leen soo paree nga sujjóot baada salaam ndax dolli rek nga mën a defati léegi léegi nag soo fàttalikoo sujjóot bi te fekk bi nga koy fàttaliku rakka bi nga nekk fasu na mooy rukkoo nga continuer julli gi sànni rakka bale soo su julli gi jeexee nga dolli beneen rakkaam baaniyan mooy doo mooy doo sëlmal da koy da koy da ngay àggale julli gi c'est extraordinaire c'est extraordinaire léegi nag wa sajada qabla salaam in kaanat min al ulayayn wa tadakkara baada aqdi thalis léegi nag baada salaam qabla salaam ngay sujjóot su fekkee rakka bi nga sànn ci ñaar rakka yu yi la bokk te heure bi nga koy fàttaliku fekk nga rakka ñetteel bi fasu parce que rakka ñetteel bu xasee fasu duutu mën a remplacer rakka ñaareel bi bi bu fasu lool danga koy def bu ñaari rakk nga jàng ci li ñuy jàkk ci ñaari rakk eh. rakka ñetteel bu bu fasagul bu fasagul da ko da nga koy remplacer rakka bi bi yàqu donc jàng ci li nga doon jàng da nga da faate ak saar bu façon faatee rek ngay jàng kon rakka bi nga fayee rakka bi nga passé matul parce que rakka bi yàqu ci rak ñaar rakk yu njëkk la bokk ñaar rakk yu njëkki yi faate ak saar lañ ci jàng soo ko fayee rakka bu matul mooy rakka boo xam ne faatee dong nga jàng kon da nga sujjóot xam ne salaam loolu c'est pas difficile ah xam ne salaam ngay sujjóot lu tax parce que ñaar rakkaa yi ndax yàkkaa rakkaa bi yàqu ci ñaar rakka yu njëkk yi la bokk dafa dañ ciy jàng faate ak saar te yow rakka bi nga ko fayee faatee doo nga jàng ndax bi nga koy fàttaliku fekk na ñetteelu rakka bi fasu ba pare te faatee doo nga jàng te moom nga remplacer bi nga bàyyi faate ak saar bi nga bàyyi te waroon cee jàng faatee ak saar kon Abdou Salam mooy suñu d' accord yow indi nga sujjóot bu bëri sujjóot xabla salaam indi nga sujjóot bu bëri salaam waaye su fekkee su fekkee eh, ña rakka bi bi nga bi nga bi bokkul ci ñaar rakka yu njëkk wala mu bokk ci ñaar rakka yu njëkkee waaye bi nga koy fàttaliku rakka ñetteel bi dugagul amuloo amatoo problème ndax rakka bi nga feye moo bi nga bi nga yàq ñooy benn bu ne saara nga ci jàng loolu mooy li ànd suurata wal sa lam yafuta mu ne ndax saar wi ak taay bi rawagula la saar bi ak taay puisque bu fekkee sa da nga bu fekkee danga danga nekk ci danga nga allahu akbar ci rakka ñetteel bi yëg de rakka bi ñaareel bii rakka ñaareel bi su bàyyi naa ci sujjóot te bii fasogul kon bii laay def ñaari rakk mais bii laay def ñaari rakka bon comme moom laay def ñaari rakka waaye parce que mën naa ci jàng faate mën ci jàng sax parce que rukkoogu mën naa ci jàng faate mën ci jàng saar kon ndax rukkoogu ma ma jàng faate ak saar amul amul benn problème donc doo doo doo doo ci doo ci am benn problème doo moo tax baada salaam ngay sujjóot ndax dangaa dangaa am ay rakka yu wér ak rakka bu yàqu baada salaam du tee nga sujjóot baada salaam cest à julli gi boo ci yàqee ab rakka ba sànni ko du tee nga sujjóot baada salaam parce que da dool li nga ci julli gi li li naqaree dégg mooy wàññi sujjóot ci julli gi pare sujjóot xabli salaam loolu nag li koy jur mooy nga remplacer rakka bu matul rakka bu mat loolu kañ la mën a doon mooy bu fekkee rakka bi yàqu ci ñaar rakk yu njëkk la bokk te bi nga koy fàttaliku rukkoo nga ba pare kon ñetteel bi moo nar a remplacer ñaareel bi wala ñette wala bu njëkk te ñaareel bu bu njëkk bi faatee ak saar lañ ci jàng te bii faate la nga jàng da ngay sujjóot xabli salaam mi ngi mel ni ku ku julli fàtti fàtti saar d'accord c'est pas difficile xam nga lii vraiment jafewul jafewul de vraiment mais nag waaw yi ak xam nga euh, tëggin bi moo moo xaw a ma moo moo parce que euh, su fekkoon def ne wa yasjudu qabla salaami in kaanat min al ulayin mu gën a leer mais waxul loolu dafa ne wa a qabla salaam xam nga ne wa sajada qabla salaam mun nga mun nga jàpp ne ci wax ju njëkk ji lay waxal fekk wax ju départ la bu bees loolu moo tax arab jafe arab dafa jafe kon masala mi masala mu mu mu jafe la mais ma ne sa koo dégg ma waxaat ko ku bàyyi ñaari sujjóot ku bàyyi ñaari sujjóot day daal di dem sujjóoti leen waaw day dem sujjóoti leen ba pare sujjóot baada salaam ndax dana dolli ci julli gi képp ku fàttali ko sujjóot bu mu waroon a sujjóot fàttalikuwu ko ba rukkoo ci rakkaa bi ci topp ba rukkoo ci rakkaa bi ci topp na sànni rakka boobu rakka bi mu bàyyi jul si na ko sànni continuer julleem bu paree mu mottali julli gi baaniyan baaniyan mooy du sëlmal day àggale julli gi day jàpp ne ñaari rakka la amatuma ñaari rakk benn rakka laa am léegi nag mu des mu des léeg-léeg mu def ko sujjóot xabla salaam léeg-léeg mu def ko sujjóot baada salaam kañ lay sujjóot xabla salaam mooy su fekkee rakka bi yàqu ci ñaar rakk yu njëkk yi la bokk mooy ñaar rakk yi ñuy jàngee faati ak saar te heure bi nga koy fàttaliku fekk na nga rukkoo ci ñetteelu rakk bi ndax ñetteelu rakk bi boo ci xasee rukkoo dootoo ko mën a dootoo ko mën a dabu dootoo mën a jàng saar kon am nga rakka boo xam ne faatee dong nga ci jàng te boobu nga nar a remplacer rakka bi yàqu te rakka bi yàqu faatee ak saar nga ci waroon jàng kon da nga sujjóot xam ndax wàññi nga ci julli ndax bu dee ñu julli ñeenti rakka la léegi se julli ñeenti rakk yi ñetti rakk yëpp faatee dong nga ci jàng benn bi dong nga jàng faatee ak saar kon kay wàññi nga kon bu fekkee rakkaa bi yàqu ci ñaari rakkaa yu njëkk la bokk te biñ koy fàttaliku rukkoo nga ba pare ci ñetteel rakk ndax boo rukkoowuloon dangay da ngay jël ñetteel rakk def ko ñaari rakk bu jeex du am benn problème soo naan ñetteel rakk bi léegi ñaari rakk la nga jàng fàtte ak saam ba pare nga sujjóot baada salaam parce que léegi am nga rakka bu yàqu am nga julli nga juróomi rakk ñeent yi ñoo baax benn bi yàqu baada salaam ngay sujjóot sa julli gi mat na ba des kon su fekkee bokkul ci ñaar rakk yu njëkk yi su fekkee rakka bi yàqu bokkul ci ñaar rakk yu njëkk yi kon rakka la boo xam ne faatiha dong lañ ci jàng kon rak rakka boo ko fayee mu mat ko rakka boo ko fayee mu mat ko parce que rakka faatiha nga fay rakka moo tax boo baree baada salaam ngay sujjóot ndax léegi li mu rakk yi nga yokk rek ñu wàññiwoo dara bi mu nekkee ci ñaar rakk yi njëkk yi dangaa boole yokk li mu rakk yi ba pare wàññi saar ak taxawaayam moo tax nga doon sujjóot xabli salaam voilà c'est pas difficile li dong la loolu dong la li mooy masala bi ñu naan mooy lam ya fóota defe naa ñun ñëpp comprendre nañ ko léegi li xanaa mooy takk ko takk ko ba bu ñu la ko laajee nga nga nga nga wax kon incha allah mën nañoo yem ci masala boobu te bu ñu fi ñëwaatee ñu ñu nafaraat bu baax a baax a baax 59 euh, bu ko kenn fàtte 59 ak 60 mën nga tàmbali sax 58 d'abord ku bàyyi rukkoo fàttali ko woo ko ba sujjóot mu ne jógal taxawaat. ku fàttaliku ko sujjóot fàttali ba taxawaat mun jógal toogaatal sujjóot ko ñaar yooyu moom mais bii nag moom mooy bi nga xam ne da nga fàtte sujjóot ba ba rukkoo boo fàttee sujjóot ba rukkoo parce que yi mu wax yëpp yi mu njëkk wax amul rukkoo goo boo rukkooyee rakka boo sànni ko rakk boobu sànni ko rakk bi nga bàyyi suba ba ba rukkoo ci rakk bi ci topp bokkatu mënatoo ko defar sànni ko léegi nag soo ko sànnee boo koy defar léeg nga sujjoot xabla salaam léeg-léeg nga sujjoot baax kañ ngay sujjoot xabla salaam mooy bu fekkee rakka bi nga bi nga sànni ci ñaar rakk yu njëkk yi la bokk ndax boo ko sànnee te mbokk ñaar rakk yu njëkk yi mooy rakka bi nga sànni rakka buñ jàng faatiha ak saar la te rakka bi nga koy fayee faatiha dong nga jàng kon wàññi nga ci julli mais boo yokkee boo yokkee nombre jul rakka yi wàññi nga saar da ngay yóot xable salaam su nag rakka bi nga sànni bokkul ci ñaar rakk yu njëkk yi mooy rakka la boo xam ne faatiha dong nga leen ci jàng wala mu bokk ci ñaar rakk yu njëkk yi waaye bi nga koy fàttaliku rukkoo guloo ci ñetteelu rakka bi mooy passé goo koo dabal dabaatal dabaatal ko passé gul bu boobaa dangay ngay sujjóot baada ndax léegi sa julli mat na ba pare nga dolli nombre rakk yi waaw kon incha allah ñu yem foofu ba dellu si jàmm salaamaaleykum